ñëpp di ko ñaanal képp ko dem rek suñu borom xaaral àjjana ko wax parce que aadana aada xama su ma frère la woon na wax wax seex si moom Adama Ñang waaw Adama Ñang tamit su ma mag beneen Adama Ñang mi waa uh-huh. Pakaro uh-huh. maa ngi sant ñëpp waa ceeb uh-huh. waa ceeb waa ceeb ma seen fay sumu waa dëkk Baye Balla maa ngi sant sumu waa dëkk bu baax sumu waa dëkk di wax waa ceeb nañ ma gën a jàppale man Baye Balla produit laa ci biir làmb gars yi bu ñu ma jàppalee gi champion ndax mën naa fomi am naa ko te am naa fit te bàyyi baala man du ma dugg ci géew di tiit man musuma fàttalikoo fu ma tiitee. champion nga tey wane ga jàmbaar. waaw man du ma tiit. tey wane nga jàmbaar. wallaahi mais Mbacke Faye pour mu bëree dootul jafe mais Mbacke Faye am na ay promoteur ci biir parcelle. waaw ni ni nu laay def bu subaa. Hmm. mais jàmbaar production mën na ko def. waaw man ñàkk mooy promoteur mais problème adversaire laay am. problème mu adversaire. man avant rëm di ma jël seet nañ du mat set mbër ki ne bañ. Hmm. waaw léegi boo jógee ci rëm rëm jël na la daan na. waaw suba damay xaar rek ku daan incha allah suba. waaw ku daan suba. waaw ku daan. Diop 2 ak kii waaw ku daan borom soome kii ku daan ak Cité bu waaw ku daan rek waaw loolu day loolu day waaw loolu yenu na maanaa boobu nangu naa mais à boobu beneen ñamal ma beneen waaw Petit Lo Mbacke am na loolu waxoon nag boo daanee waaw su gaaw xamal lu non daa am lu ma waxoon jàppal bés ah d'accord ah daf na la bu daanee day jël soxna Baye Balla Baye Balla maa ngi sant Jibi Gens waaw Bokar Mam Ngor borom Ngoy Cheikh Diouf xam nga maa ngi sant bu baax Cheikh Diouf waa Mbane nga ci def de waaw non naa ñëw ci loolu waa Mbane maa ngi leen di sant bu baax waa Mbane arrondissement Fatick yëpp ku ci mel ni Mame ay Aïdara Cheikh Diouf xam nga dem di dem ba Diofior di nuyu sama papa Assane Diofior xam nga waa Simal waa Marloj Mar Fafaxo Mar Sulu xam nga waa ñëpp daal maa ngi leen di sant bu baax il yëpp maa ngi sant di sant waa ceeb ñëpp waa ceeb waa Mbaba Garage waa ñaxab waa dem naa fépp waa ñaxab di sant saa Touba bu baax a baax waa Touba waa Moussa bi ñëpp sëñ Bay suma papa maa ngi koy bu baax di ko sant di sant xam nga sama coro bi ma nekkal tey dama ñaanal jël papam xam nga <laughs> sama coro bi ma nekkal fay biram moom xam na boppam bu ma nee ah. fay biram moom xam na li may wax quoi di nuyu magam magam asu fay waaw Asou noo kooku rek laa am man aw ma keneen. moom sël di nuyu Asou Faye ah. Asou Faye ah. Asou Faye Pa Pa Waly Faye papaam Pa Waly bu baax di ko sant di leen ñaanal famille bi ñëpp. waaw Asou Faye Koura ñoom ñëpp maa leen di ñaanal. suñu borom defal ñu jàmm. comme ñoom xam nañ sama doom sama doom la. <laughs> ab ab ah, presse bi la 22 la di woowaa ñëpp. di ñëpp sant Laurent sama njaago bi sama booy koñ bi yëpp maa leen sant ma fi yaay yëpp waa Cambérène ñëpp 1 ba 26 xale jigéen ñi xam nga ñoom Zane Mbaye Fass Cissé nday mbay ñaaña xam nga sali jigéenu koñ bi yépp daal ku lim jum Awa njaay sama rax xam nga maa nuyu waa Bokar ah, suma papa papa Sidi Ndiaye pa Sidi Ndiaye maa koy nuyu bu baax a baax bilaalu koñ bi ak imam Diallo maa ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax a baax di leen sant waa Cambérène gi ñëpp ma fiyaa ñang baalo bi ñan Mati Ndiaye suma jigéen suma xarit suma lépp waa xoos maa ngi nuyu xoos Martin xam nga Duudu ak mafia ñang baalo bi yëpp baay ñang baalo mi ngi ba Casamance mais dama doon ñaanal barke alxuraanu karim baay di di woo ay nit ñu muy génneloo ay sarax ñang su ma la waaw waa Daaru Ndiaye ñëpp maa ngi sant waa Daaru Ndiaye waa ceeb ñëpp daal bàyyi ma kenn incha allah waaw wasalaam jaajëf jaajëf eh, gars yi ngi leen di jaajëfal bu baax ndeysaan waaw kooku allah dinaa la may buzz amul problème Thiam Babel jaajëf eh, mbokk yi ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax a baax ñu ngi félicité ah bu baax a baax a baax Mbacke Faye ah di encouragé rëm lii mooy lamb waaw kan incha allah waaw waaw non non non lundi lundi déedéet mercredi mercredi mercredi incha allah eh, ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax téléspectateurs yu Bantamba TV ñu ngi leen di jaajëfal lii mooy li nga xamante moom moo amoon biir arène nationale mbokk yi xanaa ñu jox leen dig daje incha allah bu neexee rabbi sama waate wa maa fil ard suba bu neexee rabbi sama waate wal ard yaaka baal leen ma de micro bi ma yoroon waa mbokk yi li ma leen bëggoon wax mooy lii mooy li nga xamante ni mooy li amoon ci biir arène nationale Ousseynou Laye production moom lañ ci àndaloon gis ngeen drapeau soxna Aïda Saliou la tey drapeau Mama Lamine Sarr le grand champion borom jàmm gën ah tey Ousseynou Laay def na lu rëy ñuy félicité bu baax Mbacke fay di encourager rëm rëm champion nga ndaanaan nga yàgg ngaa am ay bis di daan waaw mbër waaw mbër saa buy ñëwee ci biir arène national bi victoire lay indi yow mi koy indi sa morom tamit buy ñëw noonu lay indi loolu mooy waral ñu naan ñaari victoire yi dugg mais benn génn tey yàlla dogal na ko ci Mbacke fay mu jël ko ñu ngi koy félicité di la encourager bu baax a baax a baax mbokk yi ñu ngi leen national xanaa ñu jox leen dig daje incha allah bu neexee rabbi samawaati maa fi ardi suba incha allah diggante jub 2 ak Siteu bu Ngor mbokk yi loolu leneen la le 20 Modou Baye Fall bi ñëw naa ci ay yooni yoon foo ne talaa talaata yi Modou nga diw bër bi de ak Fallou Ndiaye <laughs> e mbokk yi jaa ngeen jëf fan loof bëgg naa leen